Saliou jërëjëf ci dalal bi ñu dalal euh, laaj bu ma lay njëkk laaj rek mooy naka nga jàng ban jàngat nga am ci préparation yi nga xam ne tàmbali ngeen ko pour euh, Coupe d'Afrique des Nations bi ngeen di waaj a dem. waaw d'abord bonsoir à tous euh, maa ngi leen ñëpp comme ni ko Kara waxee di jégalu ci retard bi. préparation bi ni ma ko jàngatee mooy voilà instant bi nii dugg nañ ci ñu ngi si préparation yi di li ñu waroon def euh, au Rwanda Kigali moom lañu nekk di commencé fii nii nii donc ça se passe super bien sant bi ñu ngi ci euh, ñu ngi ci waajtaay bi di waaj pour Cameroun. waaw bu ñu ngi gisee que ne entraîneur africain yi commencé nañu bëri di yóbbu équipe yi en en Coupe d'Afrique ça veut dire que africain yi am nañ niveau bi am nañ niveau bi par rapport ak européens yi donc ça veut dire que africain yi ñu ngi commencé ñu ngi commencé wane seen bopp ak seen xarañte ci ci wàllum football bi équipe boo jëlee équipe yóbbu ko Coupe d'Afrique benn yoon ñaari yoon ba ñetti yoon ça veut dire que voilà am na benn niveau boo xam ne àgg nga fa benn xarañte boo xam ne am nga ko ba ba mu waral nga mën a jël équipe bi di ko yóbbu benn yoon ñaari yoon ba ñetti yoon ci jongante yu mel ni Coupe d'Afrique. ñaari fan yi ngeen fi def ba jàggat nga am si ñaari fan entraînement yi. waaw ñaari fan yi nekk na ñaari fan d'entraînement yoo xam ne ñu comme ni ma ko waxee rek ñu ngi ci waajtaay bi. dugg nañ ci préparation yi instant bi nii du ma wax ñu ngi ci moitié bi mais li ñu jot a def ñaari fan yi day na dal na suñu xel quoi waaw askan bi li ñuy wax euh, mooy mooy ndam li gis li ma leen di wax rek mooy euh, ñu continuer di jàppale seen équipe ñaanal seen équipe te ñu xam que ne ñoom li ñu bëggee ndam bi benn ñun bëgg nañ ko fukk parce que tamit yàgg na bi ñu doog dalee daw ci ginnaaw euh, trophée bi nga xam ne mooy Coupe d'Afrique yàgg nañ ci topp di ci daw di ci daw di ci daw ba tey jii ñu war ci dem li ñu leen di wax rek mooy ñu continuer supporter équipe bi sànni ñu ñaan bu baax a baax ñu dem lu ñu bëgg dinañ def suñu kémti laay kàttan pour indi leen ndam li nga xam ne loolu ñu loolu ñëpp Sénégal ñoom ñëpp ko bëgg